maanaam da nga koy mixer da nga mixer. mixé boo amul mixé nga gën ak pour nga nga dëbb ko. dëbb ko waaw parce que da nga moko moom nga am ñoom xamuñu mixé ko. waaw voilà nga nga dëbb ko soo ko dëbbee ba. soo ko dëbbee ba mu mokk. pinu arrière waay s'il vous plaît léegi soo ko ba mu mokk après laaj bi fekk def nga ko ci ndox bi. ci ci bi il suffit pas parce que dañuy bañ nga jël ndox bi. def ko sa loxo di ko utiliser si sa ginnaaw parce que infection bu xasee ba am si sa si sa yaram war a tollaal sa partie boobu da ko war a bàyyi <coughs> moo tax dañu préféré nga jël ndox bi def si laaj toog ci toog ci ñaari yoon gësamul ci ndox bi daal di jikk <laughs> xoolal xoolal ki nii daal. fëggatu mbaaru. <laughs> voilà genre bool yooyu. après nga def si laaj bi. Ah, euh, laaj bi ngeen mixé kon kon na ngay toog ci ndox mi. comme gisoo laaj baa ngi nii te laaj dafa am façon dafa am ñoo xam ne laaj mais ñu bari xamuñ jigéen ñu bari remarqué wuñu loolu parfois nga jënd laaj fekk muy laaj bu baax laaj bu baax bi day mel ne luy sàcc rouge. laaj bu ñor. day day mel ne ñu laaj yëpp a ñor parce que boo seetlu la fee dafa am laaj bu blanc am laaj bu rouge mais laaj bu rouge bi du parce que da dem ne jaay laaj bu rouge la déedéet laaj bi mooy mooy couleur blanc bi muy mel ne luy luy refléter rouge ci biir boobu mooy laaj original a mel nii bi

dund ak mom lu yag te du ko du du ko indi du ko rendre compte mais il suffit que mu wal ko goor goor su ko amé day metti metti bo xamné kanamam day newi du tiaxande day newi di génné ay deut lu leer la wallahi da nga yaaka da nga dof sax parce que ñu dañu daan tégal vidéo bi nga koy sétane di xam li xew donc nañu moytu lool té dafa gaawa walé dafa gaawa walé tellement mu nga am demo faji ko mu jégg jégg nga yaaka dem na ku jigen yaakaar dem ne nga fekk fekk demul mhm. dafa dafa mel lu làqu di ñëwaat bu a rek ku mu wàll am yàqu nga yaxeet donc il faut nit ñi di ba euh, sangu di leen sangu fi ne jamfala jamfala jamfala day toog ñetti fan du sangu keroog la def nii kañ a génn ci poqotaan yow nag expert nga quoi keroog affaire fer yi ba ma eggee sama yaay damaa xas si loolu mhm. je te jure ma mhm. kii li mu la doon wax Yang ko doon tànkam te téere la la wax ñun loolu lan daan def. ah man de ma doon wax rek. yàlla xam naa ne loolu sama yaay ma dellu si sama yaay. mi di waxuñu atam ah, eh, de mu waxaat ma la même chose mu ne ma yéen iya, kooku mi ngi wax ngeen koy përk përk ndax wax ci peut-être dafa gudd mais leçon la la doon wax. lu leer laa tegal mi yow ñaar nga am. non du loolu de dama. ñaar nga war war dëgg rek en direct. non du loolu en direct ñaata nga am. maga ko yar maga eh, ko yar maga ma yar. Hmm. ah maga ko yar. Eh, oh, man de lii moo ma dal wala lee moo ma dal parce que c'est-à-dire am nga complexe bi quoi te mhm. yaakaar naa jàngoro boo ko waxul du faju te des fois li lay faj mu ngi sa wet quoi mhm. soriwul mhm. il suffit juste nga wax sa jàngoro rek nga gis après lu koy faj donc c'est c'est très important des fois ñu bàyyi ñu bàyyi réalité yi wax réalité yi wax mooy suñu réalité waruñu toog di wax yenn sujet yi donc pour xamal jeunesse bi ça nous arrive des fois bu ñu waxee yenn ñu ne yenn yoo ko est ce que xam nga ne man damay nit nit nit ñi dañ may woo du caaxaan billaay nit ñi dañ may woo am problème yu mel noonu

di nga keroog bin bi ni da cee wax di nga ci wax de. baadu maa ñëw bokk ñu ñëw ñëw baadu baadu maa ñëw bokk gaal. bëgg bin bin. ma ne baadu maa ñëw bokk gaal. man mukk man mukk. man comme yaa bëgg bin bin. ak sa ak sa waajooju ki ne la moom moom kañ ñëwee bin bin kañ moom. ah moo di en tout cas yow sa tur. nee <laughs> na ma taal yow nga statut ko ah, waaye comme mooy lii di ko bañ cee tudd ak seen daay gii. waaye ah, a tudd. <laughs> Ah, ñëwal ci ñëwal ci ñëwal ci en tout cas comme ni euh, lu amul lu amul solo la tax na ñun tamit ñu xam mais man dama siy ñaax rek gars yi surtout ma jigéen ñi koy faral di bu baax Binta xam nga. ñu si jàppale quoi parce que comme que par exemple infection la si ñoom lay gën a fasin lay lay jóge te parfois yow góor gi doo mën a xam loolu si ñoom kon daal nañ ñu jàppale si cet gi baax a baax comme ni ko oustaz Kandji waxee rek toog ñaari jour sax ngoo moom loolu moom càmbata yam moo a sax càmbata yam càmbata yam moo raw sax càmbata yam <laughs> ah, en tout cas mat naa bàyyi xel muy station euh, mat naa bàyyi xel dégg ngeen Moi, cause yi nga xamni mom elle est toujours pertinente elle est comme ça macha allah té te li ma gëna neex ci moom mooy euh, euh, xam nga ma moom dama dama dama damaa naqaree nekkal dama sauf ah mais moom. Euh, waaye elle accepte tout de moi quoi elle a tout accepté ci ci sama jëm ji moy sama wax ak sabay ko na rek yaa ma gën a xam hmm? euh, en tout cas gis ngeen la nga xam ne moom la indi woon tey muy euh, perte blanche euh, perte blanche waaye tamit indi infection perte blanche xam ngeen ne aussi dégg ngeen li nga xam ni moom la ko résumé perte blanche nag buñ ko buñ ko waxee muy la nga xam ne jigéen dina ko faral di gis muy génn ci moom muy lu naturel waaye des fois dina dina dem ba dafay am fum mu toll dafay changer couleur wala soit mu am ay affaires ya xamni dafay am ay tache de sang te loolu dara waral ko ludul dul euh, ñàkk set ci moom bokk na tamit ci euh, xalé jigéen ñi nga xamni très souvent euh, duñu du ñu am habitude di changer li nga xamni moy mooy seen petite culotte bëgguma wax ci tur bi parce que keroog fi laa tudd string ngeen ah, ngeen wax lu leen neex ah euh, euh, muy euh, muy set gi tamit set naam set dëgg ci la mais damay. jox sax infection parce que saabu voilà. xam nga lan la ñuy wax jigéen dafa war a ut li nga xam ne mooy ay àndaak ay gowe di raxas partie intime mais loolu pour ñi nga xam ne dañoo nekk ci néegu sëy mais ñun <laughs> mën na bi ñu sangoo ñu raxas ko ak ndoxu kese mais pas ay saabu. mais ndoxu kese boo ko raxasee noonu day day ënd de. saabu ordinaire saabu ordinaire ah. baax na saabu ordinaire pour raxas ko. mais baax ah. na pas chaque jour. waaw ah. baax na saabu yeneen moom kii. ah en daal euh, gis ngeen euh, moo ngi noonu Binta macha allah vidéo bi macha allah di la jaajëfal ah. merci toujours pertinente waaye li nga xam ne dégg nga ma ko muy kii daal. Euh, war naa ñëw ah. kon mais ñu nekk ci Facebook mun naa la tudd nii de ah. ah waaw waaw ayca ñëwal ñëwal Facebook voilà euh, ñu ngi sant euh, euh, Kati Khalifa Diouf. Mm-hmm. Serigne Abdou Mbacke borom dal jàmm. Mm-hmm. Fatima Ndiaye Sall. Mm-hmm. Ndiaye Ulimata Ulimata voilà ñu ngi koy ziar. Pape Ahmadou Seck. saya sa sa jàmm eh, ya nay yàlla nay yàgg en tout cas merci beaucoup. Ah, voilà Mbaye Diakhaté ah, bul tax ma Jakarta, a programme ah, Mbaye Mbaye Diakhaté Mbaye Diakhaté ñu ngi cibir nuyu eh, Facebook. loxo si ah mi ngi ah Baye Jaxate Jaxate moom ñu suivre depuis extérieur xam naa sûrement ci téléphone portable am wala ordinateur am ñoo ngi lay ziar di nuyu waa madame Fall Italie di di leen ziar yéen ñëpp après tout juste notre rubrique beauté astuce nga xam ne Binta moo ñu ko doon présenté damay dem jëli ji notre rubrique métier du jour nga xamni batchu fo mo ñukay présenter présenté borom Tek Zëm borom voilà merci beaucoup waxal waxal li nga doon. doo ko wax de. aywa eh. Eh, ah Malick balaa gis nga. direct Gaye jëlal bàcc euh, ati doxal dama nekk en direct Gaye ci proximité yi quoi yaa gën a xam voilà seetaan ko. naa ko léegi moom moo tax générique bi dem ñëwaat c'est notre euh, on va on va accueillir Bathie Bathie Ufo borom d'examen avec son rubrique métier du jour Bathie ma ngi lay ziar. di la nuyuwaat delloo ziar bu wér. Euh, Bathie euh, midi pile mi kii tii. waaw midi de moom mu ngi non rek midi pile bañ ne midi pile la wax ni jeex midi pile mom mu ngi non rek. li nakari naqari neexuma. ah xana ñu wax El Hadj bu jàppale ñu ci après. <laughs> Euh, yaakaar naa ni tay ñu ngi waxtane li nga xamanteni ni moy agriculture euh ñukoy wowe bay bay. mbay mbay waaw métier métier bay baykat mu nekk mu nekk mu nekk benn métier boo xamante ne nii Sénégal euh, bëriwul lu muy dund pratiquement mun nañ ne trois mois lay dund trois mois lay la ëpp lu muy dund euh, Sénégal ci ci ci ci li nga xamante ne nii.